Tawfekh multimédia Kara Jolof agricole vinaigre Manjara au plaisir lëkkaloo ak Kër Ndaanaan TV ñoo leen di ñaanal màggalub jàmm. xëy rek maa ngi fii ci pencum seex Béthio ki nga xamante ni mooy figure emblématique bu cantaaku ni tey nag ma taxaw ak ki nga xamante ni mooy Xaadim Baay di jànkatu xasaayit bu Serigne Saliou Thioune mu seex Béthio dama koy bàyyi mu wax digganteem ak Serigne Saliou ak digganteem ak cantaaku ni salaamaaleykum Xaadim maa ngi bu baax di la dalal. waaleykum salaam soxna si maa ngi lay fay bu baax. Xaadim ma fekk la fii nga xamante ne mooy pencum Cheikh Béthio nag yi nekk fi gileem nekk fi ban jàngan nga ci am ak sa diggante ak Serigne Saliou Thioune. waaw bisimilah jërëjëfati Serigne Saliou si li laaj noonu moom laaj bu ma neex la tey neex naa tontu ndax bis bi sëriñ Touba moo wane xaratu yow ma sabti saa mel ni asar li xidmati li muxtaari fi safar te sëñ Béthio mi nga xam ne moo waral jaloore ji ne fi ci sunuy bët daan ko def. ba tey mu làqu suñu ba doomam ju baax ji sëriñ Saliou Ndigal Thioune mate ko sëkk def taawam def xalifaam wala liggéey de bàyyam daan liggéey ba weesu la bàyyam daan def loolu li ma ciy wax rek mooy sëriñ Touba lim ni sama tay ju ne day faw ko sama dem loolu da cee feeñ ku gis fii li fi xew xam ni loolu moom firiku na sëriñ Touba tayam ju ne day gàccal démbam ñun nag ñuy taalibi ci kër gi di doom ci kër gi di lépp ci kër gi bokk ci kër gi kon boo ñëwee duñu laaj loolu danañ ci sawar waaye daal fi daal li ma la man a xamal mooy lu fi daan am benn ren yokku na ba fukk wala ëpp na ko kon nag loolu la yàlla ne la in sàkkartum la xas daanakum consentement dolli loolu joy fen te yow bis bii di magal gi mi muy rëy rëy ak cant la yàlla woote ak cant la Serigne Touba woote ndax Serigne Touba ku ne xam na ni tëlewul dara waaye bu demee nag ba ba yëg li ko yàlla dafa mu xam ni moom da cant gi mu bëgg cant sunu borom euh, jàpp na ni moom ci boppam xëy na ni mu ko bëggee moom dong mënewu ko ni moo ci àdduna bépp ñu koy santale suñu borom kenn dootu la présenté fii ci Sénégal mais damaa gis sa présence fi nga xamante ne mooy pencum Cheikh Béthio ma bëgg nga expliquer ko ñi nga xamante ne xamuñu ko noonu pencum Cheikh Béthio fii ñëpp xam nañ ko présence bi ñëpp xam nañ ko waaw ndax doom laa fi taalibe laa fi xarit laa fi waaw moo tax ma teew fii tey pour def fi sama warugar def fi sama cër bi ma fi moom waaw léegi nag yi nga xam ne dañ leen gis ñuy génn ci gerte gi di dem fan la ñuy dem lañ bëgg a xam. nag yi sëriñ Saliou Thioune mooy joxe nag yi maanaam nag yi na ko na ko bàyyam daan defee Cheikh Béthio day jënd nag yi indi ko fii bu ko indee dafa yor ay daara yor ay nit yoo xam ni ay sancaan ñu fi ne war a bernde maanaam moom ci màggal gi nag yi nii la ci jëf léegi nag yi da koy jox comme man jox na ma benn pour ma yóbbu sama dal noonu la koy defee keneen ak keneen ak keneen ba nag yi jeex nag yi dara du ci des da koy joxe daal day jënd nag yi ba pare jox ko ñi ko yelloo jox ko ñi nga xam ne ñoom la ko war a jox ñu yem yóbbu ko seeni dal pour ni ñu ñëw di dal di berndewu ba màggal gi jeex. d'accord kon bu ñu déggee bu baax Cheikh Sëñ Saliou Thioune li papaam doon def loolu lay def instant yi nii donc si ban côté la leen Cheikh Béthio manqué wala doomam ji mi ngi koy matal. gëw ma ni sëñ Béthio fi mu ne nii manqué na leen ndax lépp lu Cheikh Béthio doon def rek. jàngal na leen ko ñoom ba ñu xam ko te roy nañ ci ba ba mën ko moo tax tey amaana ñoom jàppuñ ni sax Cheikh Béthio jóge na fi ndax boobu ba tey ñu ngi chaque jour rek wéetuñ ci dara ndax ñu ngi mun sëñ Muntaxa Basiru bi nga xam ni tey seen doole la seen kattan la seen wéttal la ndax ñu ngi jëfee ndigalam di bàyyi tereem mooy seen waajur mooy seen lépp kon nag Cheikh Béthio gëw ma ni am na fenn fu mu leen di nax ndax mun Muntaxa Basiru ni mu leen taxawoo. maa ngi tudd jëwriñ Xaadim Jaañ Touba Golf Sud Dakar waa kër sëñ Béthio ca Dakar ndax sëñ Béthio ay mbiram amul tànk gi ginnaaw tànki kanam la waaye kat jëmmam jooju manqué nañu buñ nee manqué nañu nag xëy na jëmmam ji la waaye moom mi ngi fi ndax tey mooy Serigne Saliou Ndigal Thioune mii ñu ngi koy sant di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wër sëñ saali Ndigal Thioune di ci jaarale di siyaar Serigne Mountakha xalif général des Mourides di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér moom mi nga xam ne mooy sëñ Touba tey di ko ñaanal sëñ Cheikh Saliou waaye sëñ Béthio day buñ ko namee day mel ni jëmmam jooju ñu gisatul moom rek a nu manqué waaye dara manqué wul boo xoolee lii xam ne ak yokkute la baas bi boo ko xoolee xam ne baas bi ak yokkute la lii boo ko xoolee xam ne dara manqué wul ñi ngi koy sant bu wér waaw maanaam namm nan ko waaye mi ngi sunu xol yi te duñ ko fàtte mukk ñu ngi koy sant bu wér moom sëñ Béthio lii nu doxee tey jii ak nii nu mel moom la ñun lottu nañ ci meloon nii lu ne defal nañu ko li ñu war mooy topp doomam ji fu mu nu woon wuy ko te ñu àndee koog moom ba faw ci barkeb Serigne Saliou. maa doom ji daal wax yàlla jël na tànku baayam. sëñ Saliou Thioune. sëñ jël na tànku baayam ñu ngi koy ñaanal mu ëpp baayam aw fan te gudd fan am wër ak wër le yàlla may ko xéewal bu ëpp bi baayam amoon. naka la jëlee tànku baayam mën nga ñu ko expliquer. ah comme ni ba ni papaam doon def rek lay def li papaam doon def moom lay def mu ngi jàppale uh, waa dëkk bi mu ngi def limon moon moo ngi jéb moo ngi ci sëriñam di def lim moon lim moon ci sëriñam. cantaakuun yi sant leen gërëm leen rek ndax rakam rakam biñ doon ndax uh, uh, amat jey cuun man maa ko doon toggal fii ci këram damaa dem ba wér di mënatumaa togg ma bàyyi mu jël keneen. waaye wax dëgg man maa ngi leen di sant ndax amat jey cuun mi rakkam daf maa defoon comme doom ji mu jur waaw ñaanal euh, sëñ al Mbàkke Albachirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér Mbàkke ñaanal sama sang bi sëñu saal gël tàppe sëñ saal ndigal cuun yàgg fi te lool te wér ba sut bàyyam ba sëriñ Béthio ay fan ñu de moom dong lañ yaakaar moom dong lañ yaakaar tey ak ëllëg waaw sëriñ Saaliw ndigal cuun moom dong lañ yaakaar ñaan yàlla mu may ko gudd fan ak wér ci daraja yi Serigne Touba ci daraja yi Serigne Saliou ci daraja yi Serigne Cheikh mi mu yaakaar ñun sëñ Béthio manqué woon nañu waaye sëñ Saliou ndigal ci mim ñu booleel doy nañu wasila ñun jooyatuñu sëñ Béthio ndax sëñ Saliou tànk ba sëñ Béthio taxaw woon moom la ñu taxaw ba léegi man de su ma ko gisee barkib Serigne Béthio dëgg-dëgg Serigne Béthio la may saf sëñ Saliou ndigal cuun heure bu ma ko gisee dëgg-dëgg Serigne Béthio la may saf man lan moo lan mooy wareef cantaakoon ci murit lan moo def lan mooy waree fi cantaakoon ci yoonu murit cantaakoon ci yoonu murit mooy Serigne saaliw moo ñu moo ñu moo ñu mbaa laal jox ñu doo amun jukuri jox ko Serigne Saliou jox ko sëñ Béthio sëñ Béthio jël ko jox ko doomam ju tedd ji di sëñ Sall ndigal cuun maa ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi loolu te wér Serigne Saliou ndigal cuun yal na fi yàgg lool te ànd ak te yàgg taxaw te yàgg toog si paas place su bàyyam ba Serigne Béthio te sut ko aw fan ah jërëjëf ñu ngi lay ñu ngi baax di la kontaanee. Cheikh Béthio moom ay mbiram mbir làmp bu yàlla taal la rek ndax Cheikh Saliou yoo ko samp te sampab Cheikh mooy sampab sëñ Touba Cheikh Béthio moom wax dëgg yàlla li muy def ku ne teg na ci sa bët heure bu ne day avancé mu jóge fi doomam sëñ yu Thioune ne fi ne ko loo doon def benn danaa ko def fukk Cheikh Béthio moom wax dëgg yàlla jëmm ju yàlla wàcce la sëñ yu taal ko muy taal boo xam ne du mas a fay. ndax bu ñu fi jógee benn bu mu doon def doomam def na ko fukk. d'accord papa léegi lan mooy euh, relation Serigne Saliou Thioune ak ñi nga xamante ne ñoo di cantaakoon yi. ñoo di cantaakoon yi ah nañ toppee seex bi lañ ko toppee rek waaw nu ko raw sax wax dëgg yàlla dëgg yàlla parce que man mii di ñëw fii di wax ak yow nii ay nag laa fi jël si yu ma war a yóbbu ci ay waañ waaw. ci ndigalu seex bi waaw wax dëgg yàlla. màggal gi moom Cheikh Béthio uute na ko métti nañu metti na jullit yëpp ak taalibe yëpp wante nag mel na ne wuute wu ko ndax sëñ Saliou Thioune wax dëgg yàlla mel na ne wuute wu ko ndax sëñ Saliou Thioune ndax lépp lu seex bi daan def rek ak fu mu tegoon tànkam rek sëñ Saliou Thioune teg na fa tànkam. béréb bi de yàgg naa fi loolu wax dëgg yàlla. pencum jànnatu mi de ba yóbbu ma ne moom sosoo ba léegi maa ngi moom yàgg naa fee jaay yàgg naa fee Cheikh Seck Cheikh Béthio mënuñu cee waxte suñu xol tooyut mënu ci ñoo wax dara dara dara suñ xol tooyut ndax Cheikh Béthio lu baax rek la fi def Cheikh Béthio yi rek la fi nekkal dañ koy jooy ba tey suñu ronkoñ ju fer ngir Cheikh Béthio lu baax rek la fi def yaakaar nañ ne nag sëñ Saliou Thioune mii ko remplacé danañ ko taf ci suñu xol mu seraloon mu ko seex Béthio waaye Cheikh Béthio kenn mënu koo fàtte ci àddina li mu def ci jànnatu def ko ci Touba def ko ci murid gi ñun mënuñu koo fàtte ci àddina ndax lu baax rek la fi def man mii sama goro tuddee naka doom ba mu tuddee doom dafa jël sama sama caat yóbbu ko ne ko kii laa bëgg soxna mu ne ko takkal macha allah mu takk ko mu taawloo góor ba mu demee daf ko laaj seex bi ne ko tur bi da may jox tur mu ne ko jàkk mu xam ne daf koy jox sëñ Saaliw Mbàkke mu ne ko may leb naa la tur mu ne ko lebal naa la ko mu lebal ko ko mu tuddee ko seex Béthio Béthio Fall boo ubbee sama portable mu ngi ci man mooy sama xarit moo ma gën a tax tax ma toog ci penc seex Béthio Fall ñu wëlbati ko ci loolu sama doom bi amaat doom ba ma demee ca tudd ma ma taxaw sama doom ne ma jàkk sama goro bi ne ma yaay bul wax damay fay bor mu tuddee ko sëñ Saaliw ma nga ne ca kër ga bi mu amaatee doom sëñ Abdou Daat la ko tuddee kon ñun Cheikh Béthio sant ko rek la ñuy def ndax ñi nu gis mu àndoon ak ñoom li mu def ci seen xol li mu def ci ñoom ñun mënuñu koo fay ñu ñi seen ñu seeni way jur wax dëgg yàlla yaral nañu suñu njaboot ñoom ak moom xel koom fii ñoo moom yal na yal nañu dund ba ba mu teeru eh, kéem yi àjjana loolu rek lañ koy ñaana loolu rek lañ koy man mënu maa wax ci Cheikh Béthio soxna si. yaay booy bul jooy yaay bul jooy. Tawfekh multimédia Kara Jolof agricole vinaigre Manjara au plaisir lëkkaloo ak Kër Ndanaan TV ñoo leen di ñaanal màggaluk jàmm